قد وجبا له لنا من خدم بركة الذين الوجود والخدم قد وجبا sëriñ bi mas naa xëy bis woote ca njareem ab jataay ba ñam woo ñëwee mu def leen yenti xaaj ñenn ñi mu ne nañ tooge penku ñenn ñi mu ne nañ tooge sowu ñenn ñi mu ne nañ tooge saalum ñenn ñi mu ne nañ tooge gànnaar ku ñu wax suñ ceerno siisa fekke na ko seriñ bi ne leen yéen waa penku dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj kenn tontuwul ba muy ñetti yoon am ku ne ko nun dee mbàkke xiif lekk rek lañ xam ci lu ko mën a faj mu ne yéen waa soow dama leen laaj xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj am ko tont ne ko nun de mbàkki xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk mu wëlbatiku daal ne yéen waa Saalum dama leen xiif ana lu ngeen xam ci lu ko mën a faj am ku tontu ne ko xamuñu leen lu ko mën a faj lu lekk mu ne yéen waa gànnaar nag xiif lu ngeen xam ci lu ko mën a faj am ku ne ko nun de mbàkki xamuñu dara lu ko mën a faj lu lekk mu wëlbatikuwaat jublu penku daal di ne yéen waa penku nee ngeen xiif xamu leen dara lu ko man a faj lu du lekk yéen waa soowu noonu yéen waa saalum noonu yéen waa gànnaar noonu ñëpp ànd ne ko waaw Mbàkke mu ne man Ahmadu Mbàkke mii di wax ak yéen it day xiif xawma dara lu ko mën a faj lu du lekk ni mu leen wóore ne xiif dara mënu koo faj lu dul lekk na leen wóor ne mbugalum bàmmeel dara dara mënu koo fekk lu dul jàmm yàlla man nag yàlla dama dénk mbalaanum sutura moo xam ne ku nekk ci àdduna di sàngu ca biir waye mbala num bammel boroma koy ràbbal bopam kon nak na ngeen lu bu baax masnam ku ñëw ci serigne touba di jébalu bim mu ba nopi di wax xër gum mu xër ba ne serigne bi man day boo ma ma tabbi ca ten be sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko ba wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci ten bi ndax tabbi ci ten bi amalu la njariñ amalu ma njariñ ana lu mu doon kay xanaa dangaa bëgg ci sa borom loo xam ne naroo jëf lu la ko may nga di ko waxe noonu waaye kaay ma digal la lu lay jariñ boo demee na nga sax ci ak jaamu yàlla mas naa am itam ñu doon tàggoog sëriñ bi di ko wax xer guñ xer ci moom ak bëgg ko bëgg ba ne ko bëgg giñ bëgg day tax na lu bari ci xeeti yàlla yi mënatuñ koo def sëriñ bi ne leen bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan bu ngeen demee na ngeen ca boole bàyyi lekk ak naan bokk na ci yooyu am na ku doon jébbalu ci sëriñ bi wala boo ko xam daa dikk ci sëriñ bi ne ko man de damaa ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk nijaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñëw fii fi yow ngay sama ndey di sama baay di sama nijaay sëriñ bi wax ne na mbooloo mi ñëpp jege si bañ kër këree ba ak si sëriñ bi ne ko njool waxaatal li nga waxoon mu baamu la mu waxoon ne ko dama ñàkk ndey ñàkk bàyyi ñàkk nijaay sëriñ bi ne ko noppi nga mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko déglu lii ma lay bëgg a wax danaa la booleeg ñoo xam ne danañ mën a wuutu ñoo ñu nga ñàkk te boo defee lii ma lay wax du ngeen tàggoote dikkal dellu te boo demee nga def jaamu yàlla muy sa baay def liggéey muy sa ndey def doylu muy sa nijaay tey siyaara si waaye ñàkk ñett yooyu nag jëru toog fii bi loolu amee ci biir jataay bi am keneen ku topp si daal ne sëriñ bi man de damaa bëggoon a jébbalu sëriñ bi ne ko ah? mu ne ko damaa bëggoon bu ma jébbaloo ba noppi loo ma digal ma def ko loo ma tere ma ba ko sëriñ bi ne ko moo gën de ana mbooloo mi nekkoon foofu ña fa nekkoon daal di jege si sëriñ bi daal di ne leen kii de dafa am lu mu wax daal ne ko waxaatal li nga waxoon kooko waxaat la mu waxoon sëriñ bi ne ko dama bëgg ngeen yëg ne jébbulu ay wax dong la dégg ngeen li ma wax ñu ne waaw Mbàkke sëriñ bi ne boo ko waxee dégg nañ ko boo ko jëfee jàpp nañ ko daal di ne gees kilifa yi ne leen dama bëgg a waxtaan ak yéen ci lu mel ne loolu waa waxoon léegi dama leen di dénk yéen ñii ñuy dikk ci yéen di jébbalu ci yéen

na fekk mu ba dama bëgg ngeen yëg ne gor yi ma leen di booleel koo ci woo digal ko ngir sunu borom boroomam loko ko fasansa du ko sañ bañ koo ci woo digal ko ngir sa bakkanu bopp bakkanam gàntuloo ko du ko nangu dama bëgg ngeen yëg ne as gor du ragal durus dee ngeen ko ñu ne waaw Mbàkke mu ne as gor day jomb ragal boo koy def la nga ragal bu fa nekkatul dootoo ko ragal ruus boo koy def ka nga rus bu fa nekkatul dootoo ko rus jomm nag ci sidit lay nekk ak deret dama bëgg ngeen jombatee def lu yàlla gërëmul loolu laa leen digal mboolem askan yi may tuddoo ak bokk yi nu waaye mën a tuddoo ci man ak lu waay mën a doon ci man dama bëgg ngeen yëg ne lu waaye jàpp ne mën na ko ci man lu mu mën a doon te yor jikko joo xam ne ku ma déggoon di ma seet si bu ñëwee ba gis la day wàññi ngir sa jikko dootu ko jaral bàyyi lam newoon dootu ko jaral agsi fi man kookee ku mën a doon na xam ne aw diggan ci sunu diggante woo xam ne du jàll mukk te lijjantewuñ ko te àdduna ma ak yow